tudurli bu koor gi ñëwee ngeen def seen kol noonu naan da ngeen muuru ay saytaane ngeen soo leen dutu dara bu koor jotee ngeen muuru ah yéen man jaaxal gépp damay ragal sa rambaaj yi ngeen doon leen yàlla pour yéen yàlla mën ngeen koy nax ah taxul laaxa ragal leen yàlla weeru koor jotee ngeen di selal ah ok selal daal weeru koor kasa la bu bu jeexee doo wax boo wax mu lay mbaj barki sëñ Fallou Rahman waxat booy wax ma lay mbaj toujours troce boo xool bi ngay jéggi tali yow ngay jéggi xool tali mën na ko wér boo xool eh, yow laay waxal maa mu koy wax waaw yow xanaa jàng nga code la route boo xool bi ngay jéggi tali ma ay la voilà boo waxee et puis man du ma ma lay yow jaaxaati léegi Serigne Fall Rahman yow jaaxaati léegi war nga ñu waaye nga somb yow jaaxaati léegi waaye yow lan et eh, puis xoolal non wàcc non non non non non non du permettre tout sauf jigéen di waxamoon di yëkkati beesam di yëkkati soom quoi. yow xam nga kan mooy sama papa yow mais li jëndu ma loolu quoi non sa papa li jëndu ma ko quoi. la jël si yow. waaw jaafaa jaafaa. ah ban heure nga yor ban heure. heure heure ba mu bëggoon ndaw ji waay. lan 32. 18 heures 32 ah. waaw waaw merci waay grand ah. ay 18 heures ñaata grand maa ngi jégal de 18 heures ñaata. yow gars yi ne yow looy def nii. non dama lay laajte. sa laajte heure yu bëri yi rek. su ma ko fàtte woon waaye kattan ndeyam moom la ñu ne barke Serigne Fallou Rahman boo ma saagaatee boo garab ma ne Cheikh Maya ay saaga ndey de dëgg li nga nga bëggaat. Cheikh Maya ay saaga ndey laa. booy katal xoonam. man ndey laa la ngembal foofu. waaw ah, ngembal foofu boo ma saaga ndey mu noqal. ah ah c'est ce mu baax ma. <laughs>